defal Serigne Touba ndax wèr wi ñu nekk muy wèru safar dama ne aduna bi fu fi nit nekk sa xel ak sa xalaat yépp mu ngi jublu ci Touba dëkku Serigne Touba bi ndax sëñ bi wax nako ko léegi bi bi mu demee liggéeyali boromam ak jëwrinam bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ba yàlla fay ko fay gi mu ko fay bi mu ñu fii daf ne di mu ngi sant yàlla ci dem bi nga xam ne demoon na ko liggéey li suñu borom kon nag weer wii mun nañ ne weeru Serigne Touba ndax fi mu nekk nii quartier boo dem dëkk boo dem ñu ngi def lu mel nii di ko jàppale Serigne Touba comme ni ko kii waxee ne sëñ bi ci weer wi dong la laaj ndimbal di ko santale boroomam ci weer wi kon nag buñ ko defee at yi paase ci quartier bi def ko ren ren mun nañ ne bés bi dafa am beneen dimension ndax bu ñu dee fàttaliku bésu sëriñ Touba sëtëm di bàyyi Jili Mbàkke léegi léegi nga xam ne lépp loo xam ne quartier bi mu ngi koy def bàcc ma sàmba mii di ko def amul lu muy def rek te bàyyi Jili Mbàkke léegi léegi dugalu ci loxoom defu ci taxawaay bu mu sëkk kon loolu sant la ndax taalibe bu ko suñu borom boolee ak sëriñam te sëriñ bi fu mu toog di fàttaliku taalibe bi taalibe bi war naa sant yàlla bu baax ci loolu di sant yàlla ci fàttaliku bi nga xam ne Baay Jili mu ngi koy fàttaliku suñu gox bi ndax lii firnde la ci mu yëkkati sëriñ Babacar jëwriñ sëriñ Touba bii nga xam ne mu ngi toog ne ko demal ma teewal ma ca ñoom bàcc ma sàmba ci seen bésu safar bi loolu de lu rëy la ci ñun lu rëy la ci ma sàmba lu ci quartier bi waaw ndax nit nag ki mu teewal jëmmam lay représenté kon sëñ Babacar jëwriñ ñu ngi lay xoole bàyyi ji li Mbàkke ñu ngi lay wax bismillah ci quartier bi ñu ngi lay jox suñu ziyaar nga tegal ñu ko ci loxo baay Jiili Mbàkke ñu ngi koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér liggéey bi nga xam ne mu ngi ci nekk guddi ak bëccëg di ko liggéey ci yoonu maamam bii di Sëriñ Tuubaa di ko liggéey ci lislaam bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko ko yàlla jàppale yal na ko yàlla jox ko kàttan yàlla defal ko gudd fan bu ànd ak wér ndax nag nit ku baax la sëriñ bu baax la sëriñ bu yëg ay taalibeem la sëriñ bu am yitte ci taalibeem la ñun dañ naan du rek sëriñu Masamba day sëriñam di conseiller di xaritam loolu la wane loolu lay jëf guddi ak bëccëg kon nag ñu ngi sant bu baax waa quartier bi ndax lu mel nii lii mooy boole ay jullit lii mooy boole ay taalibe lii mooy boole quartier ndax at mu ne bu weeru safar bi teroo ñu taxawee bés bu mel nii yal nañ ko yàgg a taxawee yal na yàlla defal ñu jàmm ci quartier bi yàlla dollil ñu sutura ci quartier bi dollil ñu déggoo ci quartier bi defal ñu yokkute ci quartier bi ba lépp loo xam ne naal nañ ko muy lu baax lu dëppoog lislaam yàlla kàttal nañ ñu ba ñu mën ko def ci kàrce bi kon sëñ Babacar ñu ngi delloo suñu ziar bu baax ci sëñ Baye Djily niñ ko waxee léegi rek yàlla moo am pay yàlla na ko yàlla fay ndax fi mu ñu teg xam nañ ko fi mu teg bàcc ma sàmb xam nañ ko ndax lu mu def ci bàcc rek lu mu defal bàcc ñun ñii la ko defal quartier bi la ko defal kon ñu ngi lay yóbbante ci sëriñ bi ay cant ak i ngërëm ak i ñaan ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi gërëm ñëpp di gër sant ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf